sax man. on toog quatre jours rek maa ngi boire. alors how are you. c'est tout laid down. so ready to you know move on you know ready to move on with you. so right now you're gonna tell us when you're gonna come here because the fight is like in three weeks. so what are you gonna do? I do

Well, oh, okay, so now ready, you're going to come today. Because right now, we're going to put one suit on you, you know, and we have to see a lot of things on you. Boy, mm-hmm. damaa war a dem. We just somebody there. mooy li ma bëgg ñu def Sénégal ndax mm-hmm. Sénégal làmb ji amul sécurité. Mm-hmm. ah lu tax loolu. làmb ji Sénégal la gën a garaaw ci àdduna. ñu risqué la ñu risk. risqué. man moo tax chaque jour ma leen di wax nag tey lay leer. sonkisi bugguma kenn gaañ ma may gaañante kenn deret yii laa ante est-ce que xam nga ni problème bu rëy la ci diggante nit ak nit. doo xam kii ban feebar la. ban feebar la waaw analyse duñ ko def. feebar balaa ngaa xeex. da ngay indi bëri dañ lay yóbbu làmb dama bëgg nga. waaw mais làmb bi dina visite médicale. visite médicale boobu damay wax ak yow tey ay wax ak yow. waaw dañu lay jël yóbbu la hôpital bi gën a mag boo xam ni one championship ñoo la fa yóbbul seen bopp. yow soo la ko ay rax su xamoo sax docteur bi ñu koy fekk ñu jël sa deret côté yëpp. jël ñu ne la VIH you know VIH jëlal la appétit B hépatique euh, B la am na beneen ñeenti feebar diabète jëlal la feebar yi wàll yépp lan lay jëlal jël deret bi ne la dama toog fële nga pare ñu xool say bët dugal la ci machine boo xam ne dañuy xool sa

bu ci benn feebar nekkoon doo xeex. Hmm. te duñ la fay te duñ la fay dërëm. loolu jàll ba pare balaa loolu yëpp balaa ñuy mun ko yow fenn la rek balaa ñuy demal foofu yow fenn def ko loolu ba pare. Hmm. rek nag li ci topp mooy give us your passeport. dafay laaj dañ ko def ñu dégg joxuñu sa passeport pour bañ a a daw. <laughs> donc sama passeport. li nga may wóor ne jëlatu te léegi nag moo ko indi ba foofu. te kàlla hôtel bi yëpp. moo koy woo jëlatul. moo koy message faale wu ma. may wax ak moom lu lu ma lu def la. mais yow ku nga xam ne yow moom da ngeen war a songoo xeex. waaw yow da ngay wax anglais donc mën nga wax ak ñu la fa indi. yow looy woowante ak moom. mais si loolu moom. sa ko ñu def ko. ko ñu def